Thank you. Abdoulaye Diouf Sarr nekk la ministre de la santé daal di nañu koy limogé ci poste de ministre boobee mu nekkoon na gannaaw ba nga xamee ni coow li bëri na loolee ci hôpital yi ñàkk toppatoo malaat yi di fa am moom nag Diouf Sarr gannaaw ba nga xamee ni démb hôpital bii di Mame Abdou bu nekk fa fële ca na doon na lakk ba am ay liir yu fa jot a ñàkk seen bakkan moom Diouf Sarr nag dem na sax ba xooli mbir yooyee waaye kii di njiitu réew mi Macky Sall xaarul benn yoon lekk ngir teggi ko ca poste de ministre boobee moom nag li ko gën a dàqalu sax bokk na ci élection locale yi nga xamante bi daf ko perte daa di perte fële nga xamante ni mooy féefam di yoof moom Diouf Sarr benn xale bu ndaw daa di ko fay gagné moom nag loolee tax na rek ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi président Macky Sall dàq ko ci poste de ministre boobee moom nag kii di Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo koy remplacer atub 2022 bi ni mu tàmbalee ci moom a neexula benn yoon